برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان bu ko defee nag. bu ko defee nag. ñun ñëpp. ñun ñëpp. ñu war a xam loolu. ñu war a xam loolu. buñ bëggee am royteef. buñ bëggee am royteef. nañ seet ci ñim yaral boppam. nañ seet ci ñu bàyyi yaral boppam. ndax mas nañ cee gis kenn. ndax mas nañ cee gis kenn. mu def géewam di fecc. mu def géewam di fecc. wala muy fecclu. wala muy fecclu. masta am. masta am. wajaba. te bëggoon fecc fecc waaye nag man waxuma ne bëggoon fecc mais nag fecc bokkul ci fayda baay fekk bokkul ci sharia al muhammadiya waaw waaye nag kum neex nga fecc te man fecc yaakaar naa ne yaakaar naa ne war naa neex parce que lim jaral gars yi ëpp na nag waa ji ah ñu ngi lay ak lu nekk yu lu ne ñu ngi wuti ay lay ah. xaw xaw xaajabulaay xaw nga yàlla daf ko may fasaa te itam lu tooñkat tëgg galan ci kaw ndënd ñu tëgg ko tudd yàlla fecc ku ko defar defati ca bokk ci man danga ko tëgg ci sama bopp bi wala ma tëgg ko ci sa bopp bi tere naa ko kere ba ko bàyyi as tere laa ko ba waaye ba léegi dégg naa ne am na ñu may ko di tëgg billaahi wallaahi lasi laa ilaaha illaa huwa barke bay sa maam Ibrahima Fall ku ko dee na tëggate danaa la dog sama bopp xëdu naa ko àllaaxira ndax mas cee gis kenn. muy jël ay ndaw yu góor ak yu jigéen. muy jël ndaw yu góor ak yu jigéen. di leen dajale. léebaka lu péen di léebaka lu péen ci loo xam ne du leen jëriñ dara ci seen diggante ak seen borom ci loo xam ne du leen jëriñ dara ci seen diggante ak seen borom man de masuma ko gis yaakaar naa ne keneen it masu koo gis yaakaar naa ne keneen it masu koo gis ay ndaw yoo xam ne nag ay ndaw yoo xam ne nag dañoo dem ba seen wuti ni wërsëg dañoo dem ba seen wuti wërsëg réer leen réer yooyu ñu bëgg a jël maarifatu billaahi def ko buntab tijaara ñu bëgg jël maarifatu billaahi def ko buntab tijaara jël bëgg a jël faylu bi nga xam ne bii moom la bàyyi moom yàlla ballal ci loxo bàyyi ñu bëgg ko def buntab tijaara ñu jël nag moom la yàlla ballal ci buntab bàyyi tijaara dama ne loolu lu mat a moytu la dama ne loolu lu mat a moytu la man nag waxtu wu nekk. mu ne moom nag waxtu wu nekk. boo gisee wax jii ma di ko baamu. boo gisee wax jii mu di ko baamu. tawat yi dafa jógee ci taalibe yu sell yu bari. tawat yi dafa jógee ci taalibe yu sell yu bari. ak ci doom yi sax. ak ci doom yi sax. léegi bi ma toogee. léegi bi mu toogee. Cheikh Mouhamad Nazir daf ma wax ne. Cheikh Mouhamad Nazir daf koo wax ne. xarakaat yii di xew. xarakaat yii di xew. bu ci ñàkk a wax. bu ci ñàkk a wax. am la ñuy dox. am na ñuy dox. di diaayal ay muqaddam. di diaayal ay muqaddam. am na ñuy dox. am na ñuy dox. di tëgg ka fecc. di tëgg ka fecc. te loolu yëpp. te loolu yëpp. dañ koy askan bàyyi. dañ koy askanee bàyyi. te loolu dara wéru ci. te loolu dara wéru ci. ba leen ma rusuloo jëmm ju baaxee ne bay aas ma tooga moom mu ne ma baxal naa nga ma ne ko banaa ko ba pare ku bokk ci man di ko def ku may tuddoo di ko def. taalibe daay dégg ndigal bàyyi tere ku ko ci manut dam ma babam ba bala li ma gën a naqadi nag la tax ma gën a mer mooy xam naa ne baxuñ ko ndax dégg naa léeg-léeg nit dëkk na ma guni yu baxuñ tëgg man ah doomu aadama lépp lu mu nekk buy lu bon yàgg-yàgg dana feeñ waaye fi feeñee mooy bi ma demee ba mbooro ay nit dikk ci gàmmu gi di tëgg ci biir dëkk bi te ne man maa leen tax a képp koo xam ne kii nii da ngaa tëgg boo fa demee danaa dagg sa tànk bi doo dem sax tere naa képp koo xam ne kii nii daay tëgg bu taxawal mbooro mbooro maa ko moom ku ma fa fekk tëgg fa danaa tëgg yet bi ci sa bopp bi amatuma lu mu cee négocier dañ koy ba dañ koy ba gox daf leen ko ci rajo bi mu dem def leen ko sax internet mu dem li may wax bëgg naa bay aas dégg ko fa mu tëdd sama mbooloo ku bokk ci man bu dee ni tëgg danaa ko moom amul kii amul ka banaa ko tere naa ko bay as tere ko ba ma ne ko banaa ko gor bu xem ni man kilifa gu xem ni bay as ñu dem ci kanamam mu wax ma ne baxal naa nga ma ne ba pare sama kopp di ko def loolu mooy dëgg loolu mooy ngor képp koo xam ne kii dereeti ngorom ci yow waratu laa fekk sax fu ñu tëggee waxuma daal ngay tëgg. yàlla kenn la. yàlla moom kenn la. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn la. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn la. moom la yàlla tëjee mboolem yonent yi. moom la yàlla tëjee mboolem yonent yi. Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. moom la yàlla def muy xaatimul awliyaa yi. moom la yàlla def muy xaatimul awliyaa yi. Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. moom la yàlla def muy saaxibul fayda. moom la yàlla def muy saaxibul fayda. wa fayda at-tijaaniyya. fayda at-tijaaniyya. mas ta jàng lu day ni ak mu la. ci yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu tëraloo. ci yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu tëraloo. mësta jàng lu day ni at mu la. mësta jàng lu day ni at mu la. ci yoon wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon. ci yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon. موي دوخ سي سير بوبو سي احمد تيجان رضي الله عنه موي دوخ سي سير بوبو سي سي احمد تيجان رضي الله عنه وخام ني نجيك ييب لي سي اب وخام ني نجيك ييب لي سي اب سي اي تاغ ييب سي اي تاغ ييب سي سي احمد تيجان لاكو جيهال سي سي احمد تيجان لاكو جيهال بي سي روم ديمي با گنا مات بي سي روم ديمي با گنا مات مو اگ سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو اگ يونتي بي sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la ñuy tuddee al xijaabul awal moom mi nga xam ne moom la ñuy tuddee al xijaabul aswad mooy kiidaay gu mag mooy kiidaay gu mag gi nag mas naa koo laaj bàyyi ne ko loolu mooy lan mu ne mas naa laaj bàyyi ne ko loolu mooy lan kiidaay gu mag gi mooy lan kiidaay gu mag gi mooy lan mu ne nit dana dem ci suluukam mu ne ko nit dana dem ci suñu kaw. di tarbiya. di tarbiya. ak ba fëgg dënnam. ak ba fëgg dënnam. woote ne mooy yàlla. woote ne mooy yàlla. fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yem. fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo tax ñu tuddee ko alxijaab al awal. mu ne kon loolu moo tax ñu tuddee ko hijaab la sant. kon nag. kon nag. bàyyi bi sëyroom àggee. bàyyi bi sëyroom àggee. àgg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba wax ci boppam ne. ba wax ci boppam ne. xam na ko xam goo xam ne. na ko xam goo xam ne. bëgg na ko mbëggeel goo xam ne. bëgg na yonent bi mbëggeel goo xam ne. bu fekkoon bind na ci jamonoom di janoog moom. bu fekkoon bind na ci jamono yonent bi di janoog moom. dara mënu càggale. dara mënu càggale. لول داينا مبغيل داينا خام خام لول داينا مبغيل داينا خام خام بوكو ديفي نا بوكو بندم ييب جي بند تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بندم ييب نيت بند تي يونت اذا صار خير الخلق سرت وراءه وان حل يوما فالمسير بعيد وقت وخمين موني وقت وخمين يونت بي موغي دم يونت بي موغي mu ngi dox. maa ngi ca gannaawam. mu ne mu ngi ca gannaawam. waxtu wu sippee ak tegam. waxtu wu sippee ak tegam. moom dematut fenn de kon dox lu ko sori la. moom kat dematut fenn. kon dox lu ko sori la. yàlla may la nag aji omat joo xam ne. yàlla may la aji omat joo xam ne. bu yonent bi yëkkatee tànkam fa lay teg tànkam. topp ci man it te ne dëgg na dëggu na ci man di dëgg na xam ne moo des ci man waaye man desuma ci moom banaa ko xëduna banaa ko xalaaxira bëgguma sax ñu daje maag moom fa maay daje jeeg bay as bu ma gëstoo yàlla bu ma ko fa gis moom taw la ma am loo mooy ñu digal la nga def ñu tere la nga ba nit ki boo xàndeek moom jëm ci yàlla bu la digalee doo def bu la keree doo ba ndox da ngeen xàgg du ngeen xàgg bu moomati laa wax bi ngeen koy tëgg ci seen kër yi nit ñaa koy dikk di ma ko wax walaw xamala insaanu ayu xamalin kaana walaw fi saxratin sama ayu xamalin kaana illa waqat saxarahu laahu yonent bi moo wax ne doomu aadama lu mooy def di ko nëbbu bu fekkee lu bon la bu ko defee ñetti yoon rek yàlla weer ko ndax bu defee rek yàlla gis ko na ko jibril seetal diw damay tere ma ngi koy def mun ne ko waaye fa manqué baxal ko mu dellu ko defaatu mu ne ko gis nga ko kat ma ngi koy def mu dellu ko defaatu mun ne ko kii kat duut boo ma waxee baxal ko bi yoon doo ma ko baxal dafa sàggan jibril waxal ne kii bañ naa ko yaay sa waxal na ñi tëgg bañ naa leen bañ naa leen bañ naa leen bañ naa leen te ñëpp danañ leen bañ bu ma leen bañee rek ñëpp bañ leen ndax damaa dégle ñëpp ne leen bañ leen leen bañ leen képp koo xam ne du dégg sama ndigal ak kuy dëgg bañ leen ko maa leen ko sant bañ naa leen bañ naa leen bañ naa leen ba ci yowmal xiyaamati ku ko mën ta ban ak ba ma tey bisab tey bii nii laa di tàqaloo kooko na ma ba tey te bu ma ko tudd bu ma tuddati mukk bu ma ko gisati mukk bu mu dikkati ci sama place mukk wala bu fa ñëwee danaa ko toroxal ak fu mu a doon danaa ko toroxal ak ku mën a doon xamul ñaan ñaanuma tus ndax dama mer ñi jaru ñaanal boo ñaa boo ñaanee rek ñu ne mer bàyyi leen ñu dem ak sama mer sama mer mooy ñaan dem leen. tuub nañ sama mer mooy seen ñaan. tuub nañ ko bàyyi. waxuma tuuba wax tuuba balaa wax. bàyyi bàyyi bàyyi. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان